tijaani sama waay la camiñal jaara busu wala man sebi jaara jurujub bi des na maa ngi leen di bëggee di leen déwénati di leen ñaanal jàmm gudd fan ak wér di leen wax ni kontaan naa ci following bi kontaan naa ci support bi kontaan naa ci jàppale bi maa ngi leen di bëggee vraiment kontaan naa trop yal na yàlla sàmm leen defal leen jàmm bonne fête à tout le monde dewenati à tout le monde je vous aime je vous adore et continuez à suivre Wally Balago Seck c'est l'idéal c'est des Faramareen ils veulent ressembler à tonton Wally ah y a Fata y a Papi Nawel y a Mohamed y a Mohamed encore mon fils ah c'est mes enfants ma famille ah ils sont tellement beaux ah bonne fête à vous. ñun ñëpp dañu bëgg ñu doon waajal seen ay jalaab yi. waaw jalaab yi dama xeere de xeeru géej la ah. oui ah. yàlla booy jégal. c'est des Palmarès yu bëri Fata. Papi Nawel. tijani sama waay la jàmm ñal jaara busu wala ma sebi jaara